y no caí mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre suñu Kewel Info du nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp du nuyu sama sëriñ notre responsable moral bu daa tëmul sax si dér moom sax daal du nuyu kilifa diine yëpp te ñu ngi fii si écurie jàmbaar ñëw seet champion Petit Lo di ko ziaraat bu wér a wér di ko jox wàccu waayam fas yéene waxtaan ak mooma ah, ci làmbam ak li nga xam te ne barki Dembo Ndiaye mu def tamit donte amul victoire ci général bu Malika ñu gis général bu Malika seede seede rafet ci moom dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan mu jël nag ñaari avance def ni papaam maa ngi lay ziar maa ngi delloo ziar Fatma Dia di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu waa parcelle 1 bu 26. ay di nëpp di nuyu képp bëggee Petit Lo rek maa bëggee ñëpp ñëpp ñëpp mm. di bëggee monde entier. ci mm. loo ne gannaaw ba nga consommé sa mariage par di la waxaat heure ménage yàlla may na si njaboot gu barke ci barke yonent ah mais merci beaucoup allahumma amin ah nii rek comme ci li ma fekk nii maa ngi samay entraînement di waajal sama combat waaw. Petit Lo nga jël ñaari avance euh, ci loolu noonu avance dañoo fekkente wala dafa fekk nga jëloon avance ba oh loolu dara loolu moom dara ah, loolu dara ndax combat yi am na différence quoi eh, bi Melo bi Julien eh, loolu rek moo tax ah eh, combat yi am na différence waaw am na distance quoi. waaw adversaire boo xam te ne mën a wax adversaire de taille la mais adversaire boo xam te ne ñëpp dañ fee bàyyi avance am nga jël ko muy brise de mer numéro 2. waaw ah, mais loolu dara làmb la man damay sawar ci làmb yooyu quoi damay sawar di bëre ak ñi nga xam te ne dañ ne ay ndaanaan lañ quoi damay sawar pour bëre ak ñoom ndax boo bëggee nekk champion da ngay daan ay champion adversaire bi nga am yaa koy soog am sa carrière euh, durant ba nga commencé bëre ba tey. waaw loolu la gars de am na ñu wax loolu de ah mais làmb la rek ah am mais la rek ah la rek mënul weesu làmb. waaw bi. ah xam naa ko ci làmb. ni mu bëreel. ni mu bëreel ah seeraan naa moom ak ay thèmes ak si ay maa moom sama premier combat sax ñëw bokkoon journée. moom moo bëree combat spécial bi man maa man jour boobu moo nekkoon sama premier combat moom moo bëri woon spécial bi. kee man ma daan moom mu daanu di ñaan yàlla na fa demee waat noonu rek ñu ah. boo xaat journée mu daan waat ma daan rek incha allah mais loolu dara moom sax moom kii lay sax moom kii laa njëkk a bëreel mbay tin laa njëkk a bëreel moom laay mujjee bëreel quoi mais loolu moom du dara yee loolu dara waaw loolu dara dañu ñaan rek xam nga yàlla taxaw ñu bu baax suturaal ñu dooleel ñu kàttanal ñu may ma ñaari ndam suñu ñaar ñëpp incha allah non pas mbaytin boobu mbaytin junior mbaytin bu mujjee bëreeg Tony junior laay bëreel. Oh, mbaytin boobu waaw waaw waaw waaw mbaytin boobu bi mujjee bëreeg Tony junior quoi. waaw uh-huh. moom laay bëreel. Uh-huh. mais mbaytin boobu gis nañ euh, mu def na beneen exploit ci combat am ak xeeru ngor te nee na combat yi la gën a mëne ndax nee na incha allah la fay neex la fay kii yëpp moom moo ko moom moo koy def. <laughs> waaw incha allah loolu yeggaguñ ci. Uh-huh. yeggaguñ ci waaw. le 5 mai. bu ñu jegee gars yi xam te moom bokkuñ ci dara wax dëgg. ci lépp ci bëre ci xeex ci lépp ah. ci ah. ci lépp macha allah bokkuñ ci dara. loolu lépp macha allah yaa ko buñ buñ buñ ci yeggee gars yi xam incha allah. bañ yegg ci. moom na mos naa gis ngay xeex dafa bëgg a xeex ak yow ndax yow doo gis ku. non loolu la koy wax nii rek moom loo ko may du ko jël te man du ma ko may dara. Ah. loo ko may du ko jël. waaw mais mooy loolu maa ngi ci kaw maa ngi wàcc. gis détermination li mu li mu jàpp amul yow lan nga yaakaar ci combat boobu. doole ak entraînement rek laa ci yaakaar eh, laa ci yaakaar ak yàlla naa yàlla sunu borom moom entraînement laa ci yaakaar. ak ñaan yi ma sama papa yaay di ñaanal. wallaahi uh-huh. ci yaakaar wax dëgg. bi mooy euh, bi mooy deuxième fois géej waay euh, ah? waaw je pense bien je pense bien bi mooy deuxième fois may may dugg géej waay waaw ah, bi mooy deuxième fois ah. kon mu ne yow li nga foog amul lan ah, dara man daal di li mu war a nekk moom ak li ma yaakaar maa ngi ci. Mm. entraînement ak julli naan yàlla. mais lan moo tax nga ne eh, bu dee doole bu dee bëre bu dee lépp yow yaa ko. ah la rek man li nekk ci man laa xam quoi. waaw ah, mais moom day bëri tamit day xeex. ah eh, moom lu mu nekk champion moo tax ma jël ko. combat bi gis lu extra. ah man loolu laa ci bëgg eh, man dama bëgg bëri combat bu métti wallaahi. foo yaay eh, dama ko bëgg ndax man sama combat boo xoolee mooy loolu. waaw ah, du mat une minute quoi. te moom moom bëgg naa ñu bëri combat bu neex. xeex. ah xeex bëri ah. waaw mais ci bu kii rek ci bu paree pour def loolu rek. waaw bien pas ay ñëw jàpp rek mu jeex. j'aime pas quoi bëgg naa ñu bëgg naa satisfaire amateur yi tuuti quoi bi baax. waaw ah, non mais ñu bëre rek ma ma daan ko rek waaye. Uh-huh. gannaaw da war a dem entre da nga war a entraîner nii ndax danga jël uh, sa temps beneen bi mooy ñu gis la barki Dembo Ndiaye ci uh, cent million yi dañoo bind luur ma laajte la nag nga ni ma sama pois dafa dépassé lese. ah non sama poids mu ëpp poids rek. ndax poids bi lese bi quatre-vingt-dix kilos la te man sama poids ëpp na quatre-vingt-dix kilos loolu moom yéegal ci luut bi. d'accord mais euh, nga ni di nga euh, premier tour yi di nga ci mën a am général ba ma non non mais xam nga tirage la moom saa da fa nekk ñëpp ku ñu nekk mën nga ko am uh-huh. eh, am nga am ko premier tour mooy loolu. mais loolu compétition la rek loolu dara. mais bañ naa yow ak général bu Malika sérieusement ndax nee ko bu doon lutte avec frappe lu petit loo da ngay bañ tey ñu gis lutte simple. nga jël petit lot loolu ban jàngat nga ci am yaw non amul jël gars yi ñooy tirage. Ah. moom laa la wax nii gars yi rek. tey bu kenn du ne petit lot ak kii général Malika. ah nii nii nii kenn wax petit lot général Malika. ah, ah ndax bokkuñ genre bokkuñ bokkuñ niveau en fait. Ah. léegi fee euh, simple bi ñu gis yéen ñaar donte daan na la mais gis nañ macha allah nga bëri dem ba jeex. waaw mais mais man loolu compétition la rek eh, comme comme contact nii rek ah dama demoon pour compétir rek et eh, buñ dayee tamit la ngeen bëgg ma def xanaa du ma xool ko mu ñëw jàpp ma daan ma. non non je pensais que affaire bi day mais loolu foofu lu facile am fa. Ah. Eh, lu facile am fa moom di ko saluer de passage mm. genre moom grand bu baax la quoi mm. déglu naa mu wax ay wax yu rafet mm. di ko bëggee bu baax loolu moom di ko bëggee bu baax grand bu baax la ndax def na ay séeréer rafet yoom xam te ne na ko si bañ a fekk. bu neexoon waaw wax lu ko neex te boobaa mooy loolu. yaa hmm. mais di ko bëggee bu baax. d'accord mais 5 yi am na coow de côté général Mariko ordinateur loolu nag nga gisee yow en mbër lu simple waaw mais tamit des fois arbitre man du ma la wax dañuy favoriser mbëru mbëru mbapat mais hmm. genre def nañ ay erreur keroog quoi man boog d'après man sama gis-gis hmm. eh, gëm naa ne général daf ko daan quoi eh, man d'après li ma gis quoi ci sud bi. gis naa ne général daan na ko te en plus tamit genre avertissement yi. comme ni ñu joxe victoire noonu mooy loolu quoi mënoon na demee neneen quoi mënoon na leen mayaat ay temps ba kenn am avertissement doo joxe victoire. mais tamit làmb la rek xam nga arbitre tamit ay nit kese lañ dañuy jum. Eh, peut-être tamit dañ jum jour boobu loolu kese la mais du dara ah, euh, fi may jeexalee ak yow fan yii nan nga gisee làmb donte Modou wax dëgg yàlla def na performance bu extraordinaire si ñaari xale yoo xam te ne ma allah dañoo bokk ci làmb kii li nga xamante ni pause bi ñu ngi doon wax ni euh, dafa doon suuraale ki nga xam xamante ne moom mooy Tafatine di xaar Sa Thiès ñu ngi si barki démb euh, démb euh, grand Aziz di ko nuyu au passage mu def benn sortie bay wax ci combat Sa Thiès ak ki nga xamante ne moom mooy Modou loolu nan nga ko gisee. ah mais Modou mais pourtant gars yi ñooy gis loolu rek mais demeewul noonu Modou dafa jógee si ñaari combat yu métti yooyu combat yi seen différence bi amul sax presque deux mois hmm. waaw wala bu matee mois ci la yem ñaari combat ay combat jànk. Eh, mu mu mu enchaîner préparation yi récupéré wul yàlla may ko si ñaar yëpp ndam mais bu ko neexee mu ne day dem noppalu bàyyi affaire yi seddaat mu ñëwaat yëkkati ko et eh, moom moom moom géem bi bu ko bëggee yëngal da koy yëngal. Eh, moom ko moom koy heure bu ko bëggee yëngal da yëngal temps yàlla nga doon dégg làmm dafa dee làmm dafa dee mais ba mu ñëwee gars yi gis nañ ne làmm deewul Modou moo amul woon Modou moo bëriwul woon rek. kon puus bi ñu loon sóoraale yow gisoo mais loolu amul Modou àlla lay si tafaatin Modou fi mu toll nii ci làmm amul lu muy sóoraale Euh, amul lu muy sóoraale ci làmb. d'accord euh. am na xale bu taxaw tamit ne dafa bëgg a bëre ak moom mais dégg na lu mu wax muy rek rek loolu ay Reug Reug Modou du moromam Modou du morom Reug Reug ay mooy moromam mais Modou du moromam waaye. Hmm. kon tamit validé woo loolu. non mais loolu du validé loolu yow Modou la lay dañu mën a jël avance Reug Reug bu ko jëlee gars yi mooy loolu. Hmm. eh mais Reug Reug Franc mooy moromam Reug Reug Sa Thiès mënu la daan nga daan benn bombardier bu pare ne da ngay bëri Modou loolu impossible. mënul nekk dese ko de dese na ko ay Lac de Guiers na ko ay Gris Bordeaux ak Franc mu doog a yegg ci saa waay. kon bala moo egg si kon dana. saa noonu. Eh, kon kon yow jàpp yow kon Modou est-ce que dina bëreeg rek rek tamit ni nga nga waxee nii. wala yéen ni ngeen waxee yombewul noonu ne yombewul hmm. eh, moom moog Franc ñoo war a bëre mooy làmb ja. Hmm. Eh, loolu loolu la àdduna yëpp di waxtaanee moog Franc. nee na bañu ko mais du léegi parce que tamit bañu ko mais du léegi. mais loolu la rek Modou bañ ko mais du léegi quoi jotagul. ah c'est parce que mooy moromam loolu mooy àdduna combat ba nga xam ne bu taxawoon tey àdduna ñëpp moom la ñuy waxtaanee et franc Reug Reug la instant bi ci làmb hmm. mais à part loolu moom sa waay fi beneen yeneen combat yi fi nekk ay combat la nag ay combat neex la mais hmm. combat bële mooy gën a safe quoi. d'accord Sa Thiès ak kii nag ay champion lañ. Ah. waaw ñoom ñaar ñëpp ay ay ay ay mbër lañ ay mbër kaamil lañ. Ah. di leen ñaanal bu baax ku ci nekk yàlla taxaw la xam na dafa la jàmm nga préparé bu baax. Ah. bañ a blessé dara bañ a dal. ay ñu ñëw ñu bëre ko ci fula ak fayda que le meilleur rek gagne incha allah. yëngal gem bi day yëngal gem bi mais kon li Aziz wax nag Sa Thiès Modou mun na nekk muur daal bu pare bu noppaloo ba pare ku mu bëgg bëreel kooku lay bëreel. mais ñu gis yéen dafa mel ni bu ñu Sa Thiès Modou yéen tamit da ngeen koy valider lan non déggoo ma Modou laax bu noppaloo ba pare ku mu ne kii la rek kooku la Modou ñun ku muy bëreel suñu xel day dara. Eh, la mooy ba tey loolu. Modou laa la wax de kilifa gi la king mais man na ah, eh. di bëggee ñëpp di bëggee sama soxna bu baax di bëggee ñëpp ah di jaajëfal ñëpp di bëggee madame eh. waaw. di bëggee soxna sama tonton El Hadj xam nga di bëggee Papa Led Zo Paterche ak xoja suñu soxna si xam nga ñoom Louga sama gaay yëpp ak Sadio Mané le coiffeur du peuple xam nga bëggee ñëpp ko fàtte nan ko gise Sey jàmbaar non Sey Sey moo mën booy ah. Sey moom booy du seen morom quoi dañ ko jox ay moromam. Ah. ñu ngi nekk si allah mais nekk ci yoon bu baax a baax macha allah. ah macha allah moo ko war moom mi ngi ci li mu war a nekk gars ñu ngi koy teg si gars yi leen warloo ak Sey gars yi ñu ngi koy eh, def. Ah. Eh, nañ ko jox ay moromam non booy moom bari nañ. Eh. yéen sëy. sëy waaw sëy la dàq. non loolu yaa koy laaj. sëy moo la dàq bëre laaj tonton El Hadj laaj sama ku dàq bëre. yéen ñaar ñëpp ay ndaanaan ngeen. ki mooy suñu tonton ki mooy dàq bëre ñu naan ñëpp. non sëy moo moo mën moo fu doole moo mën moo fu doole moo gën a nekk da xaar maa ngi gis aci mbokki internet yi di ko jaajëfalaat bu baax a baax Petit mu war a nag mais vu que dañoo ñëw ma ñëw man moom mu sonn mi ndeysaan mu ne ma xaaral ma ñëw ñu waxtaan ndax kon euh, li ñu wax rek dafa nekk ci entraînement am ci combat di ko jaajëfalaat bu baax a baax ji dox gaaje gaa yëpp dig daje prochainement incha allah.